asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp si turu jëwriñu Seera Fall ji di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend mu yebal sinu fii ci wetu rakkam ji di ab taalibeem di Serigne Abdou Fall moom Serigne Mor Talla Fall mu toog ak dend ak Serigne Baye Ndam ak mboolem njabootug Seera Fall gi yebal nu fiit ci wetu njaboot gi nga xam ne njabootuk boppam lañ muy njabootuk Serigne Bara Ndiaye Serigne Mbacke Ndiaye mii toog di jëwriñ ji jiite njaboot gi euh, gannaaw ba mu leen nuyoo sant leen euh, mi ngi leen di jottali di leen masawu di masawu mbooleem njabootuk Cheikh Fall gi si ni ko xamee rek xew-xew bi nga xam ne moo fi am te ñëpp ñu yëg ko te dégg ko muy dong bi nga xam ne di sëtub Cheikh Fall di sëtub sëriñ Bara Ndiaye doon ko am ab dayoo si yoon wi yàlla sunu borom dogal mu wàcc ab liggéey si anam yoo xam ne eh, yàlla moom lépp lu xew rek moo ko dogal waaye coobare nit it bokk na ci ndax li waral dem gi ñun ñëpp xam nañ ko ah sëriñ bi doon wax léegi jottali na kàddu yi jottali na ko ñëpp mu leer si noppi ñëpp rek ñëpp xam ko te xam ne dañu ko faat si anam yoo xam ne anam yu metti la yu tar la waaye nag si ak tooñeel tooñeel goo xam ne tooñ gu mat sëkk la ndax ni nu ko waxee ay tool moom fekkiwut kenn ak jur nooy fekke ak tool waaye tool moom fekkiwul kenn koo xam ni day liggéeyal yàlla nekk si ndigal takk ak deram muy ak laxasaayam bay ab toolam ba mu àgg si déqi ko di wëlbati ay tar nga fekk ko sa biir ab toolam dugal fa sa jur mu soññ la ngir nga génn jur gi nga lànk sàkkoo lenn lu mu lu bocc sa jaasi fekk booba moom yorul genn ngànnaay nga bocc sa jaasi kor euh, gor ko ko ba mu faatu loolee xam na ni coobare suñu borom la waaye tayeefug doomu aadamaat si la bokk sëriñ bi wax ne jëf la joo xam ne naqari na ko lool metti na ko lool te it noonu ko sëriñ bi waxee léegi rek bu fekkoon ni fii la ko fekk day moom mooy toog si jataay bii waaye bu sëriñ Abdou mii toogee Baye Ndam mii toog mel na ni toog na kaddu yi ñuy jibalit ci turam mel na ni moo koy jibalal boppam te moo nu sant nu wax ko li ci jiitu nag mooy di masaw ak di dalal njabatuk boppam muy njabatuk Seera Faal ndax lii xew day wax na ni dalul si kenn ku dul moom ci boppam la dal si kawam la dal ndax njabootuk Seera Faal gépp ak njabootam lañ rawatina kii nga xam ne ah, daa bokk ci njabootuk boppam ndax fii mu bokk muy kër Seex Mor Talla Fall muy kër cër boo xamante ni bii sunu borom moo ko ko cërale waaye mu jaar ci yoon wa nga xam ne moom la sunu maam fakkoon muy yoonu tërbiya xam ne nit lu mu bari bari xam-xam te amul ab yar xam-xam ba amul benn njariñ wala mën na koo womat jëmee ko foo xam ne du ko neex du neex ay bokkam mu yoon woo xam ne ba ko Serigne Touba faggulee Cheikh Fall mu jaar si jaarale si ña nga xam ne ñoom la amoon kër goo dugg tey jii fekk fa dara rek la leen ko may mooy takk ak dar laxasaayu muritu liggéeyal sëriñ bi ba am ngërëm ngërëm mooy maye lii nga xam ne moo mooy ab cër si kër sëñ Touba ñi àndoon ak sëñ Touba tey jii kenn ku ne ñu lay tudd wala ñuy tudd sa njaboot kenn ku ne si ñoom da jaayante woon takkuk der di muritu ba am ngërëm mu mel ne ku jébbalu rek yaa ngi si yoon woowee waaye nag yoonu takk de nekk si daara bàyyi lépp sa ndaw lépp nga jox ko sëriñ bi buggoo dara soxlawoo lenn lu di ñaq di yot sëriñ bi waxuma la lam lay fàggul tey ak ëllëg waaye defaru gi nga xam ne moom lay def si doomu aadama defaru googee jar na kenn ku ne fexe ba fàggul ko sa bopp wala nu fàggul la ko ndax ab donga buy mëritu li muy def si nit doomu aadama dafa bari ndax mboolem jikko yu rafet yi nga xam ne mooy tax sunu jaamu yàlla mën a sell mooy mën a tax ñu mën a jege sëriñ bi jikko yooyee murit da koy def si doomu aadama ab dongo du tooñ ab dongo du jubadi ab dongo lañ ko tàggan mooy makaarimal axlaax te loolu moo newoon si jëmm ji nga xam ne tey jii moom la ñu faat si anam yii nu ko faat mu fekk ko nag si ndigal nga xam ne bu fekkoon ne tey jii dafa awoon yoonu boppam du xañ na du du du du mel nii mu mel waaye lii nu ko def da ko fekk si ndigal muy ndigalul juram di ab sëriñam kon nu xam ne moom na xel yi dal si moom loola la sëñ bi waxoon nañ ko wax njaboot gi muy njabootuk Seera Fall gépp ndax ku bokk si kër Seera Fall tey jii am nga lu la naqari am nga aali jóg fajal ko sa bopp waaye nun taalibe dafa am yoon woo xam ne dañ see tënku kenn ku si nekk da ngaa sàkk woon si sa jëwriñ ne loo ma digal ma def loo ma tere ma bay kon balaa ngaa jëf lenn da ngaa sàkku ndigal ba am ko ba nga xam ne mbir mi xew na te sëriñ bi jot si si la daal di sàkku si njaboot gii li jiitu ñu amuk dal te déglu ko loola moo waral tey jii mbir mi yem fii mu yem ndax du fekkoon ni ñoom teewlu wuñ digal topp ko kon naga ni leneen la ñuy wax ndax kër Cheikh Fall xajuñu si ay pël yoo xam ne dañoo jëf-jëf ju ñaaw waaye ndigal li ñuy teewlu moo tax tey ñoom ñëpp ñu toog nii ne dégg kenn ku ne bank say oom di déglu ndigalu sëriñ bi seetuñu lu ñu neex seetuñu lu naqari bëgguk sëriñ bi rek mooy sunu bëgg li sëriñ bi digle woon nag sa njalbeen ga mooy ñun ñëpp ñu ànd amakuk dal delloo ko si yàlla sunu borom mi nga xam ne moom moo sàkk ab jaamam te yoon wu ko soob la koy jaarale waaye ba sëriñ bi sàkkoo loolu si njaboot gi bañ may ko ko mooy fii ñu toog amuñu jenn xalaat lu dul déglu sëriñ bi fépp fu mënu joxoñ ñu jëm fa ñu jëm fa ba mu ko sàkkoo si dongo yi ba nu am ko nag dafa daal di santaane nag ñu daal di def ab soññee nag si ñi nga xam ne ñoom la ñu bokk réew mi wala ñu bokk ak ñoom dëkk bi te sëriñ bi tudd leen sànq bokk na si ñoom ñi nga xam ne ñaare lu mel nii day xew sunu digg ak ñoom ndax yàggu dara at yee ginnaaw ay pël rey nañ fi ay dong ba tey sa xew-xewu Saam Fall ba bërki démb dongob sëriñ Fallu Fall moom sëriñ Amdi Yaasin ab pël gor na ko ba yàq yaram wa moom mii nga xam ne tey moom la ñu rey doomam yàggu dara gor nañ fi ab dongo boo xam ne dañ ko ko joxoon muy liggéey yàlla mooy ba mu faatu si anam yooye tey jii lii xewaat dongo gone su ndaw yor jaasi ñawal ko ba mu ñaw amul lenn lum si xalaat lu dul di awale ko si biirub jàmbur ba di ko faat di jël bakkanam loole lu ñaaw la jëf ju ñaaw la sëriñ bi nag wax na ni lu nu mën a faj la bu gaaw a gaaw a gaaw waaye nag moom si boppam di jëwriñu Cheikh Fall dafa am fu mu tënku gannaaw ba nga xam ne njabootam gii tënku nañ si ndigalam moom it dafa tënku si jëwriñam ji di Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Touba Khadim Rasoul kon ñooñu ñu xam ne ñoo ñoom ñoo bokk réew mi ñoo bokk àll ñoo bokk àll bi ñoo bokk tool yi ñoo bokk ak bëgg te kenn ku si nekk xañ na da ngay sàkkoo jë dunde sa saw ñaq moo waral nga nekk si àll bi waaye kenn santu leen loolu yi jëf yooyu te seetlu nañ ni moom mi ngi bëgg a yaatu nag wala mi ngi bëgg bari xew-xew yu mel noonu di am te waxtu wu ne dañuy dégg ni pël ba gor na dongo ba ba rey ko mbaa mu yàq yaramam waaye déggaguñ ni dongo ba gaañ na pël ba wala rey na pël ba loolu kenn déggagu ko fi kon loolu di loo xam ne lu war a lu war nu war a seetaat la lu war a dakk la lu war a jeex ci réew mi la lay tax mu jeex nag ñaari anam rekk la mooy nu mën a wax ñoom ñu dégg jéem a sàmmonteeg loolee way laa saa ki nga xam ne dañ koo tànn wala ñi nga xam ne dañ leen a tànn jox leen suñu baat ñu jiite ñu yor réew mi te nga xam ne ñoom ñoo am baat bi yor yoon ñoom ñu jóg jëfe la nga xam ne moom lañ leen sant ñu jëfe ko ndax bari na si ñoo xam ne tey jii ba ñu defee jëf yu ñaaw yooyee ñu jàpp leen yóbbu leen jébbal leen yoon ba nu toogee ab diir am na ñoo xam ne dañ leen a gisaat ñuy doxi seen yitte kon dafa mel ne taxawaay ba nga xam ne loolu la sa yoon war a am dafa am lenn loo xam ne dasaa des te loola du seen wàll kon sëriñ bi mi ngi soññ ak di ñaax ñi nga xam ne ñoo yor yoon gannaaw ba mu leen santee si li weesu lépp nag mooy matuwaay yi nga xam ne war nañu koo jël si lii xew tey jii ak li mel ni moom ñu jël matuwaay yooyee bala ñoo jekki ba ñu jëfeel neneen noo xam ne du gënal kenn wala du rafet ci bëti kon mi ngi soññi ñi nga xam ne ñoo yor yoon wi gendarme yi nga xam ne ñoo fa ñëwoon doxin wa ak lépp nettali nañ ko sëriñ bi xam na ko ñaawlu na ko lool xañ na nag loolu lépp nag bokk na si li tubaab di stratégie de défense wala boog bu nu bëggee contenir euh, foule bi wala wala wala wala wala insurrection bi dana am ñoom seen système yu ñuy doxee waaye nag ñi nga xam ne dañ leen a gaañ koo xam ne dañ koo fekk si toolam rey ko ña nga xam ne ñoom la nekkal tiim ko gis ko ñooñee dootuñu mën a ànd ak sago soo xam ne dégg nga dinañ leen mën a doxe nañ bëgg ñu doxe na kon ñoom ñoo waroon a am matuk mën leen a comprendre mën leen a dégg ba mën a contenir seen colère yooyu ba lacrymogène yi nga xam ne moom la ñu fa sànni sëriñ bi nee na mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax war na noo mën a wax ak ñoom wala ñu jaar ak ñoom foo xam ne du nu àgg si di jël ay lacrymogène di ko sànni ñoo xam ne seen xol dafa naqari ba noppi ñu wëlbatiku di leen dóor ay lacrymogène loolu sëriñ bi nee na mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax di sàkku nag lii ñu jaarale ko yoon wañ ko war a jaarale ba bu ëllëgee lu mel nii dootu am ndax danoo wax ni am na ay yoon yoo xam ne lépp si kër Cheikh Rafal la dal wala si njabootu Cheikh Rafal la dal ndax kii nu fàtt tey sëtub maam Cheikh Ibrahima Fall la ndax sëñ Mortalaay maamam Cheikh Rafal di wajuru Serigne Mortala Fall Serigne Mbacke mii di wajuram sëriñ Baara Ndiaye di maamam di koo xam ne daal liggéey Cheikh Rafal ba am ngërëm te dong yépp nag. ñoo yem ndax kenn ku ne ngërëm rek ngay sàkku ndax ku joxe sa bopp rek da ngaa jël da jël njureel ga ak cër ba lépp jaay jënd ko ak taalibe ñu lay digal ngay jëf loolaa ko yóbbu sa daara joojee loolee mu doon saytu it liggéey la woon boo xam ne su su àggoon sottee du loo xam ne da koy jariñoo wala wajurum yi da koy jariñoo liggéey boo xam ne si tool sëñ Bamba bi rek la jëm kon nag kooku da doon liggéeyal yàlla kon nanu bàyyi xel ne dong yii si àll bi di liggéeyal yàlla ñoom day lañuy jëf sëriñ bi rek lañ koy jëfal sëñ am di nag nee na moom de baatub sëñ Muntaxa rek lay déglu ndigali sëñ Muntaxa rek moo ko fi indi te bàyyi ko fi waaye lii de wax na ni lu lu neex a jëf la lu neex a saafara lu neex a saafara la te it lu war a dakk la nag ndax bu dëkkul fa mu nu jëmee mën naa doon foo xam ne fii du gënal kenn suñu.